Cheikh Mourtada mm-hmm. caatum xaadim rasul la ngoog ndeysaan moo daan bañ ko koo jàpp du wakkiirlu ci kenn mm-hmm. Cheikh Mourtada waaw ah. tasaare lislaam tey ci gox yi adduna bi yëpp mm-hmm. la sëñ Tuubaa doon naan day xi asil aaji leen bil bisri ma medadi mm. ata uqima li diinillahi arkaana kenn yooyu la taxawal moom Cheikh moom Cheikh Mahamadul Mourtada xoole ci réew mi al azhar yi niñ mel xoole ci bitim réew foo dem ci al azhar yi niñ mel doomi tubaab ju jàng alxuraan ba di ko dégg jàng arab ba di ko dégg tuub di jullit ay kàccoor ñi gënoon a doy waar sëñ Murtala moo leen jaaxal mhm. su xaybatin wa baqaar la woon ku ko mas na jàkk bëgg ko mu Cheikh Abdou Khadir euh, Cheikh Mahamadul Murtala moo leen doomi Sëriñ Tuubaa yépp jox ko cër bi moom xam ki mu doon mhm. waaye mu féetewoo biti gi lu mu guddi guddi mu boole naafila ak mën a taxaw di jaamu yàlla si amul boo dee ragal yàlla te loo wax mu ne lislaam boo nee mm-hmm. boo nee kër sëñ Tuubaa mu ne lislaam loo wax mu ne lislaam lu tax mooy ambassadeur bi mm-hmm. Cheikh Mourtada mm-hmm. mooy ambassadeur wu lislaam ñépp ko nangu loolu ñi gënoon a doon ndaw sax daanoon sonn ci tukki te du sonn te boo àndee ak bagage yi ak coono yee kurkur yi ba teg nga tàmbali wut fu sedd foo dalloo sëñ Mourtada di neefile maanaam moom sëñ Mourtada li gën a yéeme mooy ñii ci dallu la ñuy noppaloo moom ci neefile lay noppaloo ci naaf lay noppaloo am <laughs> maanaam ki taal kilimam ñoo di mbàjjam ne damaa sonn di dallu maanaam sëñ Murtada keroog mu gënee sonn buy naafile lay noppalu maanaam moom naafilaam mooy noppaloo sëñ Abdou borom dër bi sëñ borom dër bi Pape moo jàll ci dër ci sëñ Murtada moolu mu tudd moo war lii mhm. dafa fekk góor gi Ilimaan fii ci rue 11 ci kër adjur ndey soxna mbou mu set ci ki nga xamne ki moy moy mooy góor Eliman dou mu ne ko dal deug deug ciow li xew fi lan la ndegale ciow lol mo doon radio bi ak télévision kon li baatin la li xew fi ci kër gi nga xamne ne góor Eliman nour boko fekke ci ca kër sëñ Murtada Mbàkke ca mbar nako ko koy fekk ko ci benn néeg kon loolu dëgg-dëgg cër bu yàgg la mm-hmm. kon du ma ko bàyyi mu jàll loolu rek laa cër wax mën daal dëgg-dëgg ci ñaar bu borom dërëm na di